Eli je pense <laughs> maa ngi lay euh, nuyu nuyu ñu nekk ci plateau bi docteur ak euh, dame di nuyu euh, téléspectateurs yi ñuy seetaan également. tey lan moo gën a fës ci actualité bi. alors euh, Sénélec la ñu koy dooree ak euh, beneen scandale encore parce que ñu fay tudd ay scandale mu ngi bëgg bari donc beneen scandale boo xamante ne ñu ngi ko fay tudd ci bésu tay bi cette fois ci mu ñeel ki fa nekk directeur général di ba bi tey ak ki nekkoon euh, directeur bu Sénélec nekkoon itam jëwriñ bu ñu denk wàllu énergie di Samuel Sarr alors Pape Mademba Bitèye li ñu xamle moo di dafay envisager jox benn marché kii di Samuel Sarr boobu les marché nag ñeel contrat gën a mag ci wàllum achat énergie fii ci réewum Sénégal ñeel itam euh, centrale électrique bi gën a mag naka noonu itam ñu xam le ni euh, boobule euh, centrale capacité bi mu am 300 watt la ñu ñi ko war a gérer di société West African Energy bu Samuel Sarr encore te amuñu benn référence donc moom moo nar a boobu boobule contrat nga xamante ni boo moyul de ondak appel d'offre ci durée wu 25 ans marché boobu boobule itam ñu lim ci nar a gagné moom Samuel Sarr moo di lu tolloog 3 mille euh, trois mille cinq cent seize milliards ci suñu ay koppar moo ko méngalee ci at bu nekk cent quarante milliards la par année donc nen euh, ne loolu mooy xibaar bu njëkk bi nga xamante ne moom moo gën a fës ci bésu tay bi beneen bi mu ñeel marché yi ñu annoncé woon ko dañu koy commencé tëj muy tàmbali tey jile donc préfet bu Dakar daal dina ci dellu si pour euh, wax nëpp ni nga xamante ne noonu la ñu ko nar a tëralee dañuy ñëw ond ak moom il s'agit de Alioune Badara Samb bu ñu déglu ko dellu si bi ñu xoolee xam ni marché yi day doon benn point boo xam bu am solo la parce que nit ñi fa la ñuy daje kon nag loolu bu amee ñu waxtaan ci waxtaan am na peut-être daanu dajul suuf parce que comme on dit ñépp ku nekk jóg nga daal ni waxul man mais waxtaan nañ ci xalaat ci daal di nañu xool nu ñu réguler maanaam nu ñu jooyantee fonctionnement bi ma mën a wàññi contact yi ñu xalaat ni lépp loo xam dafa jëm ci wàllu lekk ñu ne nañ ko ubbi altine àllarba ak àjjuma benn activité bu nekk ci marché wala euh, zone assimilée nañ ko bàyyi ñu def ko talaata ak alxames ma fàttali ni bitig yi nga xam ay bitig ko ñu lañ nekkuñu ci marché bokkuñu ci loolu donte leen nag mesure yu am doole yi muy distanciation sociale muy port de masque loolu moom fu waay nekk ci bërëb bu public wala lii privé dañ la imposer nga soo ko nga nga nga sol masque léegi nag loolu bañ ko defee grande surface mooy fi nga xam ne jàpp nañ ni njaay mu rëy lay doon parce que loolu am nay bunt yoo xam ne dañ fay dugg am kii ñu imposer leen ñu teg système de ticket boo xam ne nit ñi duñu dajaloo ci biir xam nga koy jaay moom ba sañoon ñëpp sam la waaye dañ lay imposer système de ticket boo xam ni lim ba nga xam moo yenu maanaam moo correspond ak taayu magasin bi lim boobu kott moo fa mën a nekk kon loolu ñu imposer leen rax ci dolli wutal leen également bis boo xam ne comme ni ñuy defee samedi ak dimanche ñu nettoyé dindi mbalit fomp pompe marché yi ñu jëlal leen bis daan altine bu nekk altine boobu ñoom également dinañ mën a def seen opération yi altine tey bii bi nga xamante ni ñoom jàmp na ñu ne pousse leen ko dalal ko def ko àllarba bii di ñëw ñu tëj ñoom tamit daan def li war a def loolu lépp nag ñu boole ko ak respect mesure ñuy wax muy distanciation sociale distanciation sociale mooy lan mooy euh, riitaloo bi ak tafante bi ñu wàññi ko ba nga xam ni riisoo bi du doon yomb ku nekk ba ngay toog ak sa nawle nga xaw koo jigee wala dànd ko as néew loolu bu ñu ko defee am nañ yaakaar ni ak mesure yi nga xam ni gouvernement du Sénégal jël nañ ko am nañ yaakaar ni mbas mi danañ ko mën a daan ci daanin bu jéggi dayoo parce que comme ni ñu ko waxee nag xoddiku wala ngaa lakkale foofu lañ toll mais marché yi moom comme ni ma koy fàttalee kenn tëju ko jarul ñuy daw di ñëw ci marché yi kenn tëju ko dañ ko organiser ba nga xam ne bu teyee ñi ñëw bu subaa ñëli ñëw voilà donc euh, ñoo ko déggandoo préfet expliqué na comment ça va se passer yan jour le marché yi di ubbi ak itam supermarché yi et cetera euh, ñu jeexalee ko ak domaine u euh, dam mu di éducation président Macky Sall temps yi on a remarqué que dafa dafa jël Twitter daf ko yëg donc am tweet boo xamante ne def na ko par rapport à ça di wax ci reprise des cours bi ñu nam amal le 2 juin pour élèves yi nekk en classe d'examen il s'est adressé aux élèves aux étudiants aux parents mais également aux enseignants di xam ne ni mu ngi partager ak ñoom seen inquiétude par rapport à situation bi am ñel coronavirus bi tax ñu dakkaloon njàng meeg njàngale mi mais dinañ def seen kéemtalaay kattan moom ak ñi nekk ci gouvernement bi bu ko defee ñu dolli progressivement mais également mesure yëpp yi nga xamante ne moom moo ci war a ànd ñu matal ko on a entendu yenn syndicalistes yi ak enseignants yi jàpp di wax ni que ñoom ils sont pas sûrs que soit possible ñu dellu ci école yi le deux gis nañu également tey ñi nga xam ne ñoo di inspecteur d'académie yi te poser seen ay conditions bokk na ci enseignants yëpp defal leen test coronavirus ñoom daam euh, ñu euh, jox leen également ay masques ñu respecté par rapport aux élèves euh, distance physique bi bu ñu ci noppee également ñu def en tout cas lépp li nga xamante ne moom mooy ñeel ba ñu protéger leen ñuy enseignants yi nekk ci région yi ñu assurer leen transport par Dakar Dem Dikk loolu mooy condition ñoom yi ñu posé du ñàkk daam également moo am ci yeneen condition wala aviwam dinañu ko déglu peut-être ci kanam incha mais woon tey ma jox leen rendez-vous demain incha allah ok super donc euh, li nga indi am na solo xam naa daam tout à l'heure comme tu as dit ah dina dina développer bu baax a baax ci loolu mais koy bàyyi mu introduire avant ñuy euh, ñëwaat ci moom parce que kii di euh, Fat Abdou Ndeye Dime ak Haj Mansour dinañ gën a yaatal waxtaan bi sekk ko ak suñu ñaari invité yi mais très rapidement nga ñëwaat peut-être ci ouverture des réouverture des classes bi ñu jàpp le 2 juin yow yàgg nga prôné pour que ñu delluwaat ci école yi mais datu 2 juin bi peut-être moo la posé problème lan lañ ci mën a jàpp jàpp. jërëjëf soxna Néné Aïcha d' abord euh, maa ngi nuyu vraiment soxna Ndeye Dime euh, ak. Euh, Fat Abdou Fat ak mon ami. Haj Mansour Haj di nuyu imam ak ñi ma fekk ñëpp. di kontaan comme ni ma ko waxee sànq di nuyu tamit seen gan gi nga xam mooy ganu nabi bi tey euh, di wax ni euh, effectivement d'abord bala may kii bu ma sañoon ni may ma rek une minute parce que sama gars yi ñoo ma ko wax ni ma quand même euh, vraiment ak relation yi nga amoon ak Ndiaye Doss soo yeggee bala ngaa def dara na nga ko ñaanal ci barab bi ndaxte fii yàgg na ma fi invité comme na ma fi ñeneen ñi di invité mais moom dafa ma daan wax ni su ma waxee ci njàng mi te woowuma rek aw ma aw ma lu ma donc euh, maa ngi koy ñaanal fa mu tëdd yàlla na ko gënal fii mu jóge yàlla xaare ko àjjana ba pare ci loolu nag may wax ni euh, effectivement prétexte bi ngeen duggee je crois am na solo parce que mooy actualité bi mooy que ni moom président de la république dafa décider ci dernier conseil des ministre am ni xale yi dañuy delluwaat ci école bi mais du classe yépp ñooy ñëwaat daf ni classe d'examen yi ñooy jëm donc foofu may leeral ni bu nee classe d'examen yi rek mooy ñëw kon xam na ni ñëpp mun ñu ñëwaat parce que bu ñëpp ñëwaatee day am rassemblement léegi nag loolu di proposition boo xam ñun dañ ko defoon depuis le 12 ki ma ci njëkk a jël mooy yéen seen reporter euh, Younoussa Baldé moom ma njëkk jël ci loolu mu ne ma sax bi ma ko waxee mun ma jox nga ñu exclusivité ma wax ko ni ko Sénégal comme France lu mu def ñu def ko man ñaari option rek laa gis Sénégal am ko déclarer année blanche wala mu valider année mais jël ay jël jël son courage à deux mains déclarer année blanche quoi parce que année scolaire ren bi octobre kenn jàngul ñaari weer G20 ak G7 ñoo ngi ko ànd di grève président Macky Sall dool ci weer ak genn wàll soo ko boolee muy ñeenti weer yu teg yoo xam ni xale yi ci daara yi dugg dóomu yi ak yu lalu yi ñoom jànguñu ci public bi c'est important parce que privé bi xay na mun nañ cee ñëw ca kanam donc ñooñu xam ñooy majorité parce que 3 millions 500 d' élèves ñoo nekk ci public bi. ñooñu ñëpp jànguñu au moins ñeenti weer ren. dooleet nañ ci beneen weer. loolu mooy dëgg léegi nag ma man su fekkoon te ne maa yor pouvoir de décision bi tey xool intérêt Sénégal public bi mënuñu valider année bi. parce que bu ñuy valider année dañu xool lanu jàng parce que validation année c' est une décision politique bokkul dara ak liy xew ci école yi. ubbi école ak tëj ko ak valider année ci pouvoir président de la république la nekk. donc même ñun buñ jàngalewul su ko neexee mu ni damay valider année bi. donc ma ni leen comme moom demee na noonu su ko neexee mu ni day valider mais su valider tamit na ko leer ne enseignement apprentissage yi déroulé wul correctement xale yi leen waroon a jàng ñu ko te danger ba ma nga ca kanam. parce que ñëpp a ngi wax ne niveau élèves yi wàcc na. kon eh, eh, c'est une sax pour ñu delloowaat élèves yi pour que ñu gën a renforcer niveau bi man loolu doon sama position. maintenant quelque jours après ministre de l'éducation nationale dem ci benn émission bu ñu ko invité que deux jours avant France wax na ni moom mi ngi envisager euh, mi ngi envisager euh, donc euh, boobu sax France jëlagul astafurla France après la jël beneen décision mais moment boobu France jëlagul benn décision ci ndax day ubbi waat wala du ubbi léegi moom mu dem ci émission boobu daan ne moom validé na anem mais France dafa décidé effectivement ne moom validé na anem mais xamagul nu mu koy doxalee mais daal année blanche moom c'est exclu France wax loolu deux jours avant ministre bi ñu invité ko comme man ni ma koy waxee toujours bu xiinee France taw Sénégal moom ministre éducation nationale mu ni moom it seen année baax na te ñu nag France yamuñu ay réalité léegi nag bi mu waxee loolu ci émission boobu ma woo woote réunion sama syndicat ni leen ah comme nag ñoom nee nañ validé nañ seen année mooy année bi dootul blanche kon deuxième hypothèse bi ma doon wax écarté nañ ko léegi benn moo des ñu déglu ko nag lu mu wax ak fan la bëgg a jaar pour valider année mu ni moom ni muy valider année bi mooy day photocopier leçon yi yónnee ko élèves yi ci fi courant amul day créer benn télévision bu tudd canal éducation jaarale ko ci tente lënkaloo ci ak rajo communautaire yi yi nga xam ñoo ne ci gox goxaan yi ba noppi nag dugg ci plateforme ministère bi tudd Simen système d'information ñu ministère de l'éducation nationale tudde ko SIMEN mooy nga xam lu mat ñeenti at a ngi nii ñu koy teg en place te ba léegi acteurs yi muy jàngalekat yi ak ndongo yi ak waajuru ndongo yi ba léegi jot jotaguñ ci correctement parce que dañoo wax ni ku ci nekk da nga ci war di dugg de xam lan moo xew ci njàng bi mais ñu profité ci feebar bi présente ko Sénégalais yi comme étant la solution miracle ñu ne nag ñun ñeenti décision yooyu ñu jël ñun doyuñu parce que bu dee photocopie bi la boo ko joxee ndongo bi ku koy jàngal ku koy expliquer xale bu nekk ci primaire même ba sem mu nga jox koy photocopie nga ne ko bi nga noonu jàngal seen kër nga xam ne yaayam moom tal na leen dul expliquer ko ñu ci bëri sax seen yaay jànguñu léegi ku ko expliquer xam nga boobu kon moom mënul dem mhm. beneen bi mooy bu dee ci xarala yi la bëgg a jarale muy télévision muy internet muy lu mu mënti doon mais Sénégal àggagul foofu c'est pas parce que Dakar et les grandes villes am nañ ay wifi seen kër yi ñenn ñi ak am nañ connexion que c'est partout dans le pays que ça se passe comme ça ma convoqué waa ASER yi nga xam ne ñoo wax ni au Sénégal boo duggee ci gox goxaan yi 42 virgule 3 cent de sénégalais mooy ñeent fukki nit ak ñaar ci téeméer boo jël ñoo am courant mais ñoom xale yooyu amul courant nun leen di def ñu ni bu ñu xoolee tamit li loi bi wax loi bi nga moo tënk njàng mi ak lu jafe-jafe am loi bi moo fi nekk mooy loi 61 91 22 de 1991 du 16 février 1991 ni njàngum Sénégal képp kuy sénégalais da nga cee am euh, tout tànku Sénégal da nga cee war a jot ba keroog ngay ngay ngay ngay am 16 ans mu ne beneen xale yi dañ leen a war a euh, yamale ci réew mi yëpp pour ñu am les mêmes chances de réussite mhm. waa léegi loi boobu mu bëgg ko violé taxaw ni moom day validé alors li ñu gëm mooy loolu muy proposé c'est pour layal nu muy def ba valider année bi mais même boo ko bëggee valider da ngay proposer dara moo tax ñun à l'époque ñu proposer mhm. ne comme nee na moom année blanche amatul pour sauver xale yi nga xam ne ñoom ñu ngi ci gox goxaane ak ci jafe-jafe nga xam mun ñu jàng ci télé même suñu société bii ni muy dundee ba duggee ci kër xale bi bu bëggee jël accaparé wu euh, euh, euh, télécommande bi nii moom day day day day jàng mais mën nañu ko ñun defuñu loolu dañuy seetaan tel tel émission wala tel émission xale yi duñ leen jox télé bi ñoom kese donc yooyu yëpp ngi ci donc ay jafe cee bëri uh-huh. léegi ñun ñu benn solution moo des daam nga daanele mooy ñu andiwaat xale yi nga xam ne danoo def danoo war a def examen ren parce que ñoom dañ leen war a sobee parce que fii ak ñaari weer suñ deful seen examen c'est fini pour eux parce que baccalauréat bi mooy commandé te baccalauréat bi au niveau international cours yi lay en septembre. d'accord te France validé na te xale yi Sénégal yu bëri fii sax dañuy dem jàngi France donc ñu ne temps lañu amatul pour ñooñu. ñu ne comme am ñu temps ñoon nañ gaaw delloo leen ci école yi mais éclater leen c'est important une minute ma expliquer li ñu expliquer foofu ci élémentaire bi boo jëlee école moom juróom-benn classe moo fa nekk ñu ne am na maître CI CP C1 C2 cm yoo xam seen i élèves duñu ñëwaat. duñ ñëwagul parce que ñun dañoo proposé leneen loo xam ministre bi proposé gu ko mais ñooñu nga xam ne ñoom seen i ñëwagul ñoom juróomi maître yi dañuy ñëw ci école bi léegi nag maître CM2 ba nga xam moom ay élèves am ñëw te juróom-benn fukk lañ par exemple loolu mooy moyenne classe yi au Sénégal juróom-benn fukk école yu bëri matuñu ko am na nag ñu ko ëpp ëppale tuuti léegi juróom-benn fukk boobu xam mooy moyenne bi maître CM2 bi su ñëwee ñu ko jëlal fukki élèves yow maître CM2 bi dugal ko sa classe bu doon def soixante élèves nga tas leen respecter les mesures barrières. d'accord ñu def dispositif de lavage des mains nga jox fukki élèves yi de se ki yore woon élèves CM1 yi def noonu ba ki yore woon élèves CI yi ñuy toog ñoom juróom-benn maîtres yi di waxtaan ci bés bu nekk la ñuy def di bokk la ñuy def xale yi toog takk seen masque ñu jàngal leen. ñu respecter les mesures barrières. Mhm. amul benn distanciation bu récréation amee kenn du génn sa goûter lépp sa si nga toog nga koy lekk élèves yëpp nga toog seen kër loolu lañ proposé ñun mooy am ci CM yi loolu ngeen di proposé mooy am ci lycée yi bu ko defee euh, classe yi amul examen du ñu ñëw ya ñëw ya am examen ñoo gën a tuuti bu ñu leen tasee daam li ngay wax ni dafa am importance dafa dafa am importance donc il faut foofu euh, dem euh, xool tey yéenekaay yi lan lañ indi avant ñuy ñëwaat encore nga gën koo yaatal n'est-ce pas donc tout de suite